ki nga xam ni moom moo jiite nag wax na ni ñu baree baree baree bari ci ñoom euh, defuñu respecté wuñu mesure yooyu donc je pense que ni euh, te mënul jël benn mesure de sanction je pense que ni loolu imperfection loi bi la lakkinu loi bi la ay manquement la ci loi bi moom moo doyul moom moo matul parce que mënoon na au moins prévoir ko mais euh, comme président de la république bu dee ministre moo lay fal bu dee directeur général moom lay fal peut-être moom si boppam moom moo war a jël responsabilité am en tant que le gardien de la constitution en tant que le président de la république nga xam ni moom moo yore toutes les prérogatives de puissance publique mu jël ay mesures de sanction pour ces récalcitrants. nga ni lakkinu loi bi la ay lu ñu war a lu ñu war a adopté waat la defaraat ko harmoniser waat ko ba mu gën a conforme à convention de lutte contre la corruption parce que boo demee au niveau international il y a même il y a même des présidents des directeurs généraux des anciens ministres qui ont été inculpés sur la base de la corruption maanaam yoo xam ne jàpp nañ leen épingle nañ leen ci wàllu corruption donc loi bi dafa nekk loi boo xam ne dafa xaw a doye di tuuti voilà merci beaucoup euh, docteur Mbaye Cissé doon àddu rek ci lël bi ñi nga xamante ni ñoom ñoo euh, nekk foofu ci nag of nag ci njiitalu bu Ndiaye Diakhaté doon àddu euh, ci mbirum jafe-jafe ak manquement boobu les lois professeur jamono ji lañ la ñu war a def ba ngir mën a wàññ loxo ñi nga xamante ni ñoom ñoo di récalcitrant yi ngir ñu daal di sàmmonteeg bi les lois. jërëjëf Babacar may sargal Seynabou Ndiaye Diakhaté di rafetlu liggéeyam parce que à chaque fois ñu am jigéen joo xam ne liñ ko dénk taxaw na ci mat ko sëkk jigéen ñi dañ ko war a rafetlu parce que jigéen ñëpp la ko defal euh, problème bi moom bañ ko fi defee ba tey at mu nekk si loolu même problème bi la ñuy ñëw loolu moo tax may posé wu question sax lan mooy njëriñu of nag mm. bu dee ki ki ñu jox liggéeyam def na liggéeyam mais ñeneen ñi am na ñoo xam ne ñoom xëy na am nañ dëgërluwaay lu si biir nguur gi ba tax lu leen neex def parce que lii mooy ñàkk respecté sa luwaawu réew parce que bu ñu xasee ba teg benn benn texte ña féete ci kaw ñoom ñoo war a jëkk topp li nga xam ni moom la yoon wax parce que bu fekkee ñi ci kaw ñooy jalgati yoon kon ñi ci suuf naka la ñuy def. Mhm. kon problème de fonds bi euh, mooy loolu naka la li ñu mën def mooy boole leen ak askan bi parce que je crois que dafa am moment boo xam ne euh, askan bi daf ci war am dugal loxoom euh, ki fi demoon nu mu tëddee sax ki jiitu woon Seydou Ndiaye Diakhaté. Nafi Ngom Keïta si loolu la taxawoon. ba mhm. commencé di def moom dafa conférence de presse <laughs> jéebaane ñi nga xam ni wax wax li am ci biir. Mhm. je crois que les pressions sociales. mooy mën a tax euh, euh, population bi ak euh, organisation yi toppatoo loolu comme ay forum civil ñoo war a wu document boobu mais ñi ko defal nañ leen ko wax parce que problème bi mooy tamit ñun xamuñu ñan lañu dañuy wax rek bii nombre ñoo demul est-ce que waruñu àgg si foo xam ni ku ko deful ñu jébaane la mm-hmm. mais tant que dañuy protéger nit ki xamuñu kan la Euh, wax moo fi mujj moo fi bare rek mhm. euh, euh, mais dara dara du fi dara du fi am mhm. donc problème bi chaque année mi ngi dellu si mhm. te amul saafara ça veut dire que war nañ ñoom je crois que ñoom def nañ sax ay proposition pour améliorer war nañ leen aussi gestu ba xam seen proposition yooyu ñoom ñu def naka lañ koy jëmmale merci beaucoup euh, professeur donc euh, honorable ñu gis ni nekk moom procureur daal na jot ay rapport yu bëri bàyyi ko of nag waaye mu mel ni ba léegi amul benn poursuite bi nga xamante ni daal dinañ ko def ngir mën a euh, daal di exiger rek ñii di récalcitrant yi ngir ñu sàmmoo teg loi bi. jërëjëf Diaw maa ngi ànd ak faatu di sargal na bu njaay jaxate présidente euh, liggéey bi muy def of nag waaye lu liggéey bi rafet rafet <coughs> te mënu indi ay résultats maanaam loi bi mën ko appliquer ba ñit ñi jëfe ko aussi des na mhm. euh, dama damay wax équipe bu nag rek ni que loi nag am na question bu ma lay laaj euh, honorable bala nga yeggali waaw yéen a ngi gërëm seeni mu njaay toujours mhm. alors que gis ngeen ni OFNAC la ñuy yaakaar si moom lu ci bëri matalewu ko loolu lan moo war a nekk rôle ki nga xam ni moo jiite institution bu demee noonu est-ce que dafa war a noppi rek. foofu laa doon jëm. pour ñu continuer dem. waaw en fait foofu laa doon jëm il je crois de temps en temps gërëm boobu. bi mooy. ah dañ koy gërëm nag gërëm bi. laaj ñu Babacar laaj lu tax ñu koy gërëm. non Babacar xam nga gërëm bi mooy. dañ ko war ngi liggéey na il a dit que déposé na ay nangami rapport chez le procureur. def na liggéeyam ba ko procureur duutee baaraam ne ko. daf ko renvoyé rapport te loolu sax loi bi permettre ko procureur dafa taxaw wax ne nangami rapport joxe naa ko ñu mu ngi tëdd ci procureur xam nga kon def na liggéeyam ba yónnee ay rapport chez le procureur mm-hmm. waaw mu ngay def loi bi càmbar na ko man dem naa ci lël boo xam ne ñaar wala ñetti lël yoo xam ne invité nañ ma si en tant que député woon nekkoon si réseau boo xam ne affaire corruption la doon xeex ñu joyanti loi bi xool lan moo si am problème pour ñu tëggaat ko yóbbu ko assemblée loolu nag bu ko defee ba pare kan la koy jox nguur gi la koy jox mhm. soit ñu def ko projet de loi wala ay député jël ko def ko proposition de loi taxaw ci te loolu xam nga mënu am assemblée mhm. donc boo demee xoolaat loi bi jumtuwaay yiñ ñu la jox sax nga jàngataat ko mhm. ne gàllankoor gi mooy li tax ba ñit ñi duñu def nañ leen a balaa ñuy def prestation de serment sax nañu def seen déclaration de patrimoine loolu proposition yu nekk ci projet bi nga xam ne na bu ñaay jaxate ak équipe bam dem nañ ba jàngat ko ba projet bi war nañ ko jox ndeyu mbil yi mhm. xaw ma kan nag ci biir ci biir système bi bu fekkoon ne balaa ngay def passation de service dem nga en ligne bindu cutis da koy indi bay def passation de service ne man lii laa am xanaa li nga am kay wax yaa xayti warul laa ëlëm ba doo ko mën a génne liste ko <laughs> ngay xaar pour indi pièce justificative après loolu boobu dama ci dem Babacar pour wax ne mu ngi liggéey wax ji mooy comme yaa ngi liggéey waaye nee nga patt noppi mais na commencé wax ndax loi bi aussi def ko def obligation ne dafa war a wax. sama problème mooy. est-ce que booy liggéey te yow mi ngi am ay gàllankoor yow maanaam yow maanaa doyoo euh, institution bi ñu la dénk sax finalement dañuy laaj est-ce que jar na ko. te ñu teg la fa genre faire faire valoir. est-ce que tamit loolu xam non xam nga moom. mu ngi wax li muy liggéey pression boo xam day mel ni faire valoir. non ki nga xam ne moo fa teg institution ndax gëm na institution bi. dañoo tëgg institution bi vote ko ki nga xam ne moo ko indi mu bokk ci ay acquis yoo xam ne Sénégal daf ko yëkkati ca kaw ba bañ ko vote ca jamono jooju mettre ko en place suñuy point dafay yokk si indice de bonne gouvernance bi. ca lañ gëj a yokkule sax. mais ki def loolu mooy président de la République ndax gëm na nag bi nga xam ne moom la teg ba su ñooñu buñ ko defalee rapport normalement rapport bi ça n'a rien à voir avec la communication loolu dañ loolu dañ ko reprocher Nafi Ngom Keïta pour rek qui veut noyer son chien l'accuse de rage mais dañ ko ko reprocher mais dans la loi dañu ne nag doit communiquer par tous les moyens léegi nag ku deful sa déclaration de patrimoine hmm. yaa xëy ci nañ ko wax nañ liste ñi deful mhm. ñu teg leen ci journaux yi <coughs> ñu ñëw wax leen ñu wax lu tax defuñu mhm. soo demee ci yeneen dëkk yi nekk fii ay Niger ak yooyu sax ñenn soo ubbee internet di nga xam ministre ba ndax ñaata béy la am wala ñaata nag la am <laughs> waaye fii d'abord ñu ni c'est confidentiel mhm. kenn du ko wane ba pare gaa ñi duñ ko def man nous je pense que président Wade président Macky Sall la ñu war a moom mi toog mettre leen en demeure la a mis en demeure des gens qui sont les assujettis est-ce que moom mise en demeure boobu mu leen defaloon kon ñu ko bu fekkee tey bu fekkee tey nee nañu nangami nit tey defuñ déclaration kon mise en demeure bi président defoon ndax président est-ce que ñi ñi ñi mu ne ñoom la àndal di liggéey est-ce que ñu ngi wéyee la muy wax la muy wax. ay ndigalam ay ndigalam. Mhm. loolu nag bu ñu demee ba tollu foofu ci réew mi dinañ ne nag affaire bi doy na waar. ok merci beaucoup honorable voilà donc baba Babacar. <laughs> Euh, ñaari ponk lañ jëlante ah, incha allah sama jigéen ñi laa doon yëngal. waaw yëngal nga ko eh, il faut pas mais moom est-ce que def na c'est pas jigéen la jigéen la rek euh, voilà quoi que lépp lépp bongo def nga sa déclaration. man su ma nekkoon assujetti day yomb ba de <laughs> parce que nag kuy laaj alalu askan bi ñu dénk la ko eh. jox la ndombo tànk eh. foog naa bu ñu la nee waxal la nga am. Hmm. war nga koo mën génnee nga wax ko c'est le minimum. boo ko deful ñu sanctionné la nga yeewu ba dekk ministre ba génn ca ministère ba. Hmm. mosoo def déclaration de patrimoine mais kon loolu loolu problème la jalgati yoon munul passé loolu. c'est un problème c'est un problème. merci beaucoup honorable <laughs> donc euh, am naa ni ñenn ñi moom li ñu am moo bëri moo tax. Eh, moo temps moo luñ ko mayul. temps bee mayagul pour ñu pour ñu def lépp. <laughs> merci Amadou pour dara euh, <laughs> tamit euh, merci pour les deux thèmes yi ñu indil. vraiment way c'est des thèmes très important même affaire militaire invalide sax jar na thème parce que ku gis image yi keroog bi ñuy tal seeni i si mhm. ci digg tali Ndakaaru mhm. policiers yi ñëw ni ñu jàmbaarloog ñoom moo tax li ngeen wax ni danger la mën na nekk danger mhm. pour ce pays là je crois que même c'est un danger pour ce pays nañ leen lijjantil seen i àq je crois que ñu jàll si leen nañ leen bàyyi ngeen seetaan élément bi nga xam ni moo ñuy plongé ci bi maanaam euh, alliance bu parti politique yi au de l'opposition